asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax tey sant yàlla bu baax subhaanahu wa bi nga xamante ni moo dogal li fay suñu kër gi di kër sëñ Touba di kër maam Cheikh Rafal di kër maam Cheikh Alassane Sène moom sëriñ Touba ku xam kër gi xam ni lii bu fi feeñee a ah, ma xam war na ndax kër gi du tàggoog xasida yi sëñ Touba yi kër gi du tàggook euh, kalimatu laa ilaaha illallaah muhammadu gox bi sax lay wax ndax fii ko xam kër gi fii ko xam ko bi nga xam ni fii mooy kër maam Ibrahima Fall kon buñ ne sëñ Tuubaa feeñ na fi dama ni war na man damaa xëyoon dem école am cours yi ma fa doon jàngalee. waaye yàlla dogal ci biig euh, sama soxna dafa génn sam maam bi nga xam moom sëñ Tuubaa moo ko seexal moom Cheikh Alassane seen mu Tiwaawan mu gént mu woo ma ñaari yoon mu ni Ba Ndiaye Sène ma ñetti yoon astafurlah mu ni ko Ba Ndiaye Sène Ba Ndiaye Sène ba muy ñetti yoon mu ni ko boole naa ko sëñ Tuubaa mu bëgg ma xool nettali far ma yàlla yàlla dogal ma jël sama saak dem bi nga xamee ne xëy na suba di defar néeg la gis leen Sëñ Tuubaa gi tàppe ci euh, ci coiffeuse ci seetu bi ci lan ma wooyee ma agsi sama place départ ñëw mi may agsi leer gi dafa mel daf may song bi ma koy filmé mi photo bi photo yi ma sama caméra film yi leer nañ la kon lii amul naatable ku ci ñëw maanaam surtout maam Serap Fall sax moo ñëw xam naa ni xëy na xiir moo ko jàpp mu jël lépp daal koy daal koy daal koy maasale ku ñëwaan ci tàng-tàng boo ñëwee yii ñu ci am photo yi fii nit ñi am ñëpp ay photo la yoo xam ne leer nañ ah ci jëmmi sëñ Tuubaa kaalaam gi kenn du ko jaawale genn kaala ci réew mi kenn du ko jaawale genn kaala ci monde bi jëmmam ji tey leer nañ kenn du ko jaawale ak jënn jëm ku ko xool xam ne yàlla rek ngay gis si biir kon lii moo fi am tey jaaxal ñëpp waaye loolu nag sant yàlla bu baax a baax loolu soññ la bu baax a baax sëñ Tuubaa buy ñëw du feeñaat jamono day ñëw rek ngir dolliwaat nit ñi ñu gën a dolli euh, dellu suñu suñu borom jaamu yàlla te xam ni jaamu yàlla rek moo fi ne waaw kenn ku mën a doon ak fu mën a feeñee góor yàlla yi dañuy dem dañuy dañuy dem waaye deewuñu dañuy làqu rek waaye saa su ne jamono ju neen dinañ ñëw di soññi doomu aadama yi rawatina nag taalibe Sëñ Tuubaa yi war nañoo góorgóorlu bu baax a baax ndax li fi am tey mbooloo maa ngi fees fii del waaw mbooloo maa ngi fees fii del waaye ku ñëw rek gis mbir mi rek da yéem lool ñoo ko ci image yi ci photo yi dañoo yéemu lool kon loolu moo fi xew ñu ñëwoon tey ànd ak waa Thiès cees euh, FM ñëw fi ah Thiès 24 ñëw fi journaliste yi ñoom ñëpp a nga fay woo attennement war fee ñëw pour xool li fi xew te lenn lu dul karaama sëñ Touba la sëñ Touba du kuy faatu na ko ñëpp xam sëñ Touba du kuy faatu nan sant sëñ Touba bu baax sëñ Touba day dem di dis jërëjëfe sëñ Touba Serigne